mbokk si leen internet yi Info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci jot a fees dañ koy doxee nag ñi nga xam si nekk moom moo di waa TFM ginnaaw démb nag ba noo defee rek seen journaux rek wax ci nag loo xamante ne si nag dafa doy wax trop moom mii di Serigne Bass Abdou Khadre nag weddi nag li nga xam moo di wax jooju ginnaaw nag. Watefem nag ba nu génnee nag suux noo rek wax na rek ñi xam moom moo di Sëriñ Muntaxa lettre bi xam bindoon na ko état bi pour rek ñu danal dalal ay ganam fa li nga xam si nag moo di ca hôtel bu King Palace moom mi nga xam si nag ñoom ñi di nguur ki nag dañ koo bañ. mu nekk nag ak tuuma boo xamante ne si du dëgg te boobu sax nekkul dëgg ba koy ki nga xam ba koy ñi nga xam si ñoom ñoo di waa état bi nag di bañ li nga xam si nag moom moo di eh, loolu nga xam si Serigne Mountakha bëgg na ko moom mii di Serigne Bass nag moom nee na leetar boobu daal ñoom ñi nga xam si nag ñoo di seen Mountakha bind ko te si ñëw ko xawma rek fu mu jugee te bu doon bind nañ ko rek état bi dinañ ci d'accord ndax eh, Bassirou Diomaye Faye président gouvernement bi moom rek moom moo fi wax ne daal joxe na ndigal lépp loo xamante ni nag ci màggal gi la rek joxe na autorisation pour ñu dalal leen kon nag leetar boobu nag xaw ma nag fu mu jugee mais nag jugewul ci li nga xam si nag moom moo di ci ñun te sëñ bi si wu ko.